Si vous voulez bépp vidéo bu la sur ci chaîne chaîne Nour Darani TV da ngay vous Si vous bind s'abonner boo noppee vous pouvez vous abonner cloche bi. Nour Darani TV le reflet des valeurs et cultures du mouridisme. asalaamaaleykum bokki julit bi bokki julit yi sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu di leen xamal ni njàngum kaamil mi àgg na fii nga xam ne fi la koy defe nag ci jataay bii bi ñu xëyeeg léegi jàng nañ fi ñaar fukki kaamil nee na bi mu ñëwee itam ci daara yu sëñ Seexuna muy sëñ Seexuna Mbàkke mii di rakkam nee na fekk na mu jàng fanweeri kaamil ak ñett Balla Gueye muy daara ji nga xam ne moo jóge Daaru Salaam. ca daara ji ca Daaru Salaam. ca daara ji jàngoon nañ fa ñaar fukki kaamil ak juróom. bi ñuy ñëw ci oto bi. jàng nañ fi ñetti kaamil nañu ñetti kaamil ci yoon bi ñuy ñëw. muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett. ñu àndaale ko. waa dëkk bi waa dëkk bi bu ñu boolee li nga xam ne moom lañuy jàng ñoom ak lii mu wax kaamil yi yëpp day toll ci ñaar téeméeri kaamil ak juróom benn fukk ak juróom xasida yi nga xam ni moom lañ fi jàng tey jii nee na wakkaana àqan bokk na ci bokk na ci yi nga xam ni moom la sëñ Muntaxa digle ni tawat yi nga xam ne moo nekk ci réew mi nee na ñu di ko jàng jàng nañ ci ñeent. sindidi jàng nañ ci fukk ak ñaar mot la bel sifaaye jàng nañ ci fukk liste bi nga xam ne nag liste bi nga xam ne nag fekk na waa dëkk bi jàng ko ci na waa dëkk bi jàng ko ci ay xaside sindiidi ñoom jàng nañ ci ñaar téeméer jàng nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk muwaay bi naafihu jàng nañ ci juróom-ñett fukk ak ñett Matlabul Sifaa jàng nañ ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk sa su xasida gi ñuy wax saana isaayi saana saana ilaahi jàng nañ ci téeméer ak fanweer ak ñaar xasida googu nga xam ne moom la wax juróomi juróomi way la waaye sëñ bi ne ñaan na boroomam ba mu defal ko ko boo ko jàngee ginnaaw bu la musalee ba noppi mel na ni xeex yi nga xam ne moom la yonent bi salallaahu taala musa xeex ngir lislaam ak beneen xeex bu ñu musa xeex ngir lislaam ba ba àddinay tukki genn xasida gi taxaw na yool ba kon boo ci jàngee téeméer ak fanweer ak ñaar woowu yiw nee na xamuñu nu toll yàlla na ko yàlla nangu nooru daaray ni jàng nañ ci fukk ak ñett nun fii nu toog jàng nañ ci benn tey siir jàng nañ ci fukk muqaddimatul xidma ñoom jàng nañ ci fukk jàng nañ ci benn fii muqaddimatul lamda jàng nañ ci fukk ak ñett jaalibatul muraqib jàng nañ ci téeméer mu faatiwul bisi jàng nañ ci fanweer ak juróom jës bul xuyóob jàng nañ ci fukk ak ñett jàng nañ fi itam ful jàng nañ fi fulku fulku nag nee na léegi lay wax ci sëñ Seexuna nee na Moustapha Saliou wax na ko ni sëñ Touba moo ko dajaleel boppam ay xasida la yoo xam ni xale na bokkul jamono yu mu ko def waaye moo ko dajalewaat boole leen. boole leen. tudde ko fulku. ko yeneen yi nga gis yëpp. yeneen yi nga gis yëpp. mu demee ni xuraanee. mu demee ni xuraanee. ak yeneen yi ñu dajale. ak yeneen yu ñu dajale. nit ñee ko dajale. nit ñee ko dajale ginnaawam. waaye fulku moom. waaye fulku moom. sëñ bee ko dajaleel boppam. loolu lu mat a xam la. sëñ Seexu naa sax ngi wax ne. sëñ Seexu naa mi ngi waxet moom nii. tàmbali na ko fii daaw nee na ko na ko saxal te waa dëkk bi it nañ fay ñëw te ku fa mën a doge mooy naan kafe rek nga def ko fa ka am kafe goo xam ne mën nga ko faa yóbboo tam ngir ndogu nga andi ko fi ku bëgg a lekk nag ba sa biir fees nga dem ba sa kër nee na wax na ko ko moom mii loolu day yombal lu baax nee na lu baax boo ci tegee lu diis rek nit ñi daal di daw moo tax lim yooyu day baax ñu tudd ko ndax day tax mu soññ nit ñi ci lu baax li muy def ñu xam ne lu rëy la te ñu koy def bëriwul. nooru daaray ni am na ku ñëw fii. am na ku ñëw fii. ne jàng na fukki kaamil. ne jàng fukki kaamil. ak ñaar. ñu dolliwaat ko ci lim bi ñu waxan fii. ci ñaar téeméeri ak juróom-benn fukk. ak juróom. day daal di doon kan. ñaar téeméer. ak juróom-ñaar fukk. ak juróom-ñett. nee na jàng na nooru daara ni juróom-ñetti yoon juróom-ñetti yoon. jàll jàng jàllil mu ràq. ñeenti yoon. jàng mu faatil bési. ñetti yoon. jàng jës bu. ñaari yoon. jàng muhaay bu. ñaari yoon. jàng muxaddimaat ñetti yoon. jàng faw ni ñett yoon faw seyni bobu nak lu bax la ci ku sant ci sant sanc kër kuy ci keur nga jangal ko sa bop wala nga wut ku la ko jangal ndax señ bi lolu la ci won Touba koy it loolu njëriñ di ñu jang ci ñaar yoon wakkaana xaqan ñu jàng ci juróomi yoon taw fatu ñu jàng ci benn yoon jawartu ñu jàng ci benn yoon mot la ba sifaa benn yoon lam yëbdu benn yoon waaye astaxfirullah def na ci junni yoon salaatu ala nabi def na ci ñaari junni loolu dafa am ko ko fi indi loolu lépp nag bu ñu ko boolee mooy li nga xam ne moo ñu fi tax a daje ñaar fukki kaamil yi ñu fi jàngal nag sëñ Moustapha mi jàng na fukki xat mu muy sëñ naa mi jàng juróom-ñeent yi moom sax la bëgg mu jàngan beneen du mujj mu ne daa bëgg moom sëñ Ahma mu jàng ko waaye nag moom. moom nee na kon xanaa dala dama leen koy defal rek ngeen ci seen maam waaye nag li ngeen di daj ci seen maam waaye daju dajuma ko ci man wa kon nag waaye suñu waxee ma jàngal leen ko ndigal lay doon ci moom rek liggéeyub sëñ Tuubaa lay doon ci moom itam kon ñu ñëpp diglu ñu jàng xatmu bi te lu waay bëgg nga fas ko ci lii muy loo xam ni loo amul woon la te bëgg ko wala lu jaaxal te bëgg ko wala loo ragal te bëggoo moo agsi fasal sa bopp fasal sa njaboot fasal say bokk fasal say dëkkandoo fasal waa réew mi fasal bokk jullit yi yi nekk ci àddina bépp fasal waa àdduna bi jàmm tawat ji nga xam ne moo fi ne jaaxal ñu bari tiital ñu bari waaye jaaxalul yàlla te yàlla du tiit kon nag yàlla nañ ko teggil te fasaale ko ci bis bi ak njàng mii ni fi def ci alxuraan ji أخذيني أستفاري الصلاة على النبي بسم الله فواين يكون دينكو نعم بوكو تيولو فواين يكون غير آمين الحمد لله رب العالمين وبركاته الحمد لله الحمد لله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 ومن سر في الحقد ومن حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وشكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وشكنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوتها ناصيات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز حنا ما كان في تلاوته من صام أو نزيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنصرته أو تعجيل هند تلاوته أو كسر أو صيغ لسان أو وقف بخير وقف أو إدخام بخير مدخم أو إسهال بخير بيان فكتبه منا على التمام والكمال والمعاصم من كل ألحان وسقنا فضل من خرم مؤديا حقه من أهداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبساطة والأمان ولا تقتم لنا بالضر والدلالة والطغيان ونبهنا حول المنايا من نوم القفلة والكسلان وأمنا من عصاب الخبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البحث واحته رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسق الميزان رب العاصنا وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرنا بلحائق يا ديان اللهم اجعل القرآن عاصم ربي قلوبنا وجل آمين آمين وصحاب همومنا وقائدنا وسقائنا إلى جنة نهيم اللهم اجعله أنسنا في الوين الوعظة ومصاحبنا في الوعدة ومشبعنا في الظلمة ودلنا في الغيرة والمنقذنا في الفتنة واحسنا به من الصيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أقتم بالشهادة آجالنا وحق بزيادة آمالنا وحرم بها في تقدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعارنا وزوج رجال خوفك على سنوبنا ومنا لنا بسر سيدر هو يبنا اللهم اجعل تقواك سارنا وثقة بك صغرنا واحتقادنا وأمن من الجوه والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما خلقناه ونور ما ترناه لرسينا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام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 من القبيح لكل سن تصبر به أدم لوج لا حول الخير وبلسان لا تمن دي ناج إلها بتلاوة الكتاب وسكر والتنب جوالب الهتاب حبل لسنا سمسا وسل حمل به فلا حضر رب بمحل كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم اليمن واليسر وخير الصدر في خير سكر قد أتى بالمدد أدفع كل سكر سكر أهد المارك مكرم متحد فاسين بقران نجا مايد خير الصدد بسم الله الرحمن الرحيم الله من كل كريم أكرم من آمن خار لا تكرم أسلم لا كلها كأن إيمان ولا سم ولا واجب بلا كفران تكف إصابها بسم الله الرحمن الرحيم سال إلهي بمناجهاتي وأبد أنا يا ديانهاتي الله حلي الحلم والأولياء من لا يسال قوتي وحوليا آمين نقول نعم آمين ولتقود أبرا خير مرام هديتي مهجلة كل ملكان من مناسيا وأصحاب ملك ما تهجي نصارى الله لي بلا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة نجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جامع سيئات وترفنا بها عندك أهل درجات وتبلغنا بها أحسن خيات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلام وبركة ترضى بها عن عبدك الخديم لله سبحانه وتعالى وكن له فضلك العظيم وبكرمك يا باخ يا خديم bilaa afatin wala katarin bayna wa bayna ahadin wax fi lukk liman taxalaq bi min al muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat al ahyaamin wal amwaat amin yaa rabbal alamin na suñ boroom nangu liñ fi ñaan li liñ fi jot a jàng démb ak bërki démb lu yàgg di ko dajale ba lim yëpp daja tey jii ak ci xasida yi ak alxuraan ji lépp yàlla na ko suñ borom nangu te yàlla na ci faj aajo yi jullit yi yëpp rawatina fii ñu koy defe rawatina réew mi njabootu sëñ gaawaan gi nga xam ne it ñoom ñëpp ñoo ngi fi nun ñii nga xam ne dañ cee bokk teewaale nañ leen ñoom ñëpp luñ fi am ci aw yiw yàlla na ko suñ borom booleek ñoom muy muy muy njabootu deretam ak njabootu te ay taalibeem ak ak bokk jullit yi nga xam ne it seen ñooy seeni dëkkandoo su mel ne sama wëllëri wii nga xam ne moom euh, jox naa ko fi xasida sëñ Baara moom it moom it ak ak i bokkam suñu borom faj seen i aajo fajaale suñuy aajo daraje alquran daraje xasida ji daraje yonente bi alayhi salaam daraje sëriñ Touba daraje ku mas a baax ak ku baaxagut tey bëgg a baax ak ku ak ku baaxoon ba noppi te te baaxagut ndax ñëwagut ñëpp ñëpp yàlla na yàlla euh, taas ñu seen barke daraje sëriñ Touba waaye nag nga nangu yàlla bo bëggee jot bép vidéo bu jóge fi ci chaîne chaîne Nour Darani TV da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daldi di cloche bi. Nour Darani TV le reflet des valeurs et culture du mouridisme.